ñaar fukki fan ak juróom-ñeent bokkul ci lim yu fàtti lim bu rafet la kon ci ajuma ji rafet na ci lépp li ñu ci gën a taamu mooy ko ca daloo ñaanuk bis bi yow sunu boroom yàlla nanga nga nu jéggal yàlla na nga jéggal sunu mbokk yi ñu ci ngëm yàlla bul def ci sunuy xol ak noonoo ñeel ñi gëm yàlla yow sunu boroom yow yaay aji ñeewantal ji te aji yërëme ji rabbana axfir lana wa li ixwanina alladina sabaquuna bil iman wala tajal fi qulubina xillan lilladina amanu rabbana innaka raufur rahim xadisu bis bi yonent salallahu alayhi wa sallama nee na naka yaatuwaayu ñaari wunti àjjana mi ngi toll ne doxum ñen fukki at ab bis dina ñëw boo xam ne nit ñi dinañu fa raj-rajloo ba mel ni giléem yu toog juróomi fan naanuñu ni ñuy raj-rajloo ca naanukaay ba xaddis bi at tabaraani moo ko nettali qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam innama bayna misraai aljannati miqdaaru arbaina aama wala yatiyanna alayhi yowman yuzaaxamu alayhi ka isdixaami libili waradat li xamsin dimaa rawahu tabaraani mutasalaamika liman ma